tey jii mbokk yi sëriñ Moustapha Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Amérique euh, di doom ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom moo dajale woon askano yi nga xam ne ñoo dëkkee ci Darou Khoudoss ak li ko wër ngir fas yéene leen a gindi ci xeeti bouillon yi jafe yi ñuy def ci dundu doomu aadama yi ak wér-gu-yaramu jigéen ñi ak wér-gu-yaramu góor ñi jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy teg doomu aadama yi bi ñu paree nag diglu nañ lenn ci askan wi lii lañ ñu wax ñu teewlu mën a bàyyi ku nekk moom sa wér-gu-yaram rek la ndax buñ nee baaxul man duma ko weddi ndax côté bu nekk essayé naa ko doom du ma jaar si tur yi nag waaye am na si boo xamante ni bu xa bopp xale téeñee boo ko si defee mu dee. su ma añee ci jimbo du ma reer te sama lay moom lay fanaanoo ba biir set. bu sa foos feesee boo ko si defee foos ba fer loolu nan lay def si biir. amul benn njëriñ nag dañu koo tàmm rek ci fajaluñu dara lu paase coono rek. bu joon boobu it yëre oo xale bu oos wala mécanicien boo jëlee kuddu def si su ndox mi yére bi day set wecc rocc ko loolu nan lay def si biir. suñuy góor ñi sonn nañu ñëpp tële nañu amuñu benn njariñ ngir lan saf safali doom xam nga ni baaxul jimbo ji nag nun xanaa gone yee koy toog fi mu ne waaye nun dooguñu ko toog géej ju koŋ ak géej ju bër moom lan daa toog ak tamaate njam teel boobu tamit bu sa karaw boo jële wis si toog tuuti boo ñëwee fekk mu rocci karaw yi ba mu set xam nga ni loolu nu mu def ci biiru nit ñoo ngi ñaan si barke Xaadimu Rasuul yal na nu yàlla dimbali raxas ko sunu xol ba nu doon nu ko togg. lii lii setal koro baaxul ci biir lii rey teeñ baaxul ci biir bu ñu amee nag leneen lu ko remplacer moo gën waaye baaxul. muy géej gu neex gii teg si bisaabu saf bii ak daqaar ji yooyu sa ceeb day saf sap neex lool ba ñëpp mën ko lekk te du la wàññi dara. kilifa réew mi moom duñ ko lekk la ñuy lekk moom day wér ñu ñoo si war a jël sañu matuwaay ndax fajuñu ku si feebar yaay faj sa bopp kilifa réew mi moom seen yoon nekk si ndax la ñuy lekk ñoom lu wér gi yaram la leen di jox. ñun ñii ñoo war a faj ñu bopp. léegi nag gone yi nag ñooy togg mënalul leen dara xanaa bàyyi di ñu togg la leen neex boo ma nee lekk lekk bu ta lekk ni suur naa. du ma ko jënd madi bi ne eh, eh, kii bi nekk fi géej bi yéet bi laaj soble bisab loolu lu mu neexalu sa ci leneen dootu ko neexal te lool day maye wér gu yaram ñun ñoo ko moom ñoo ko bayal suñu bopp. ndaje mi li ko waral lenn la dañ doon ñaax population bi pour ñu bàyyi bouillon yi ak saf-safal yi loolu rek ndaxte bu ñooy amul xorom ñu bari dañ yaakaar amna xorom mais amul xorom gultumat de sodium mo ci nek ñu koy wax aji mutu ben bu ñoo am ci xorom du ben nak yëpp a ndox meek kibu yeek yëpp ayam bo boko boo boko dee boo lim lay ñëk jox moy tangki yu metti tànk yu metti lay ñëk jox bu lu joxe tànk yu metti bu paré jox dafa joxul malade bu naan aspartam aspartam moy gaaw fàtte nga gaaw naax boko lek day tëleloo day jox day bënn bëñ day joxe goitre ndax amul yodd day joxe insuffisance renal insuffisance rénale mooy ñaari ñebe yi ne ci ndigg li di fóot deret ji bu demee ba nga xam si sa sodium daf ko attaqué ba yàq néphron yi ne ci biir yi doon filtre deret ji yooyu yi doon fóot deret ji léegi lu ko lu ci des bu bu neeri yi bu demee ba nga xam si rein yi mënatu la fo deret ji jalis ra ngay def te jalis da metti ñetti yoon la par par par par semaine ah nga nga nga nga di ci def séance bu ne 80 000 loolu daa bari li ma leen di digal daal mooy lenn ku ci ku ci mën a benn ku ci munta nga xam am formation bi ngay def sa géej gu saf sap waaw géej gu saf sap bay bouillon yi saf safali baaxul feebar rek lay indi politique la woon rek pour ñu pour ñu pour ñu pour nit ñi feebar nit ñi feebar di jënd ordonnance ci tubaab bi lobby ay pak lobby juif yi ñu ñu koy wax ay pak ñoom ñoo ko créé woon alors pour pour di pour lu gën a lu gën a avancer seen industrie ñu gën a am xaalis seen seen gafaka di gën a am xaalis loo ci gis góor ñu bari tëli nañ ah léegi ñu daan ñu daan ñu yónnee boisson énergétique boisson énergétique pour yokk kartan amu fi woon bu ñooy rek ko waral état état du ci jéem dara état ñoom seen i taxe lañu lañu lañu la ñu kii du fi jéem dara industrie itam mm, tant que ñu ngi séddu seen milliards par bis duñ ci jëm dara duñ ci jëm dara ñi ci ñi ñi euh, li tax daal usine yi tëj mooy jigéen ñi koy togg buñ ko jëndul weer léegi usine yi tëj ñu am seen wér-gu-yaram sëriñ si ñaax comme ni sëñ Moustapha def sëñ comme ni sëñ Moustapha def waaw comme hmm. noonu bu ci sëriñ bu ko sëriñ bi tere bu ci comme ni ko suñu bàkk soxla teeloon tëyif bu ko sëriñ bi tere woon Touba léegi ñëpp ñëpp am jàmm ñëpp am jàmm.